ñaan yàlla ni ñu commencé nii si Bismillahirrahmanirrahim. rahmaani rahim yàlla na nu terminer mbir mi si alhamdulilahi rabbil alamin nun Wakam. ginnaaw ba nga xamante ne dañu xam ne sénégalais lañ comme sénégalais yépp xale yi mer ndax si biir Sénégal la leen interdire ne juróom-ñaari at xale wakaam duñu fo juróom-ñaari at la wax ne dañu wax ne wakaam du fo si biir Sénégal ku dogal loolu simple lig simple ñoo xamante ne amuñu sax pouvoir pour décider pour pour pour di ordonner loolu mu doon mélange ñu dugal ba ci biir dugal ci mbir kan la ñu ne fédération fédération dañ ko demander pour que mu fédérer man Jaraaf Youssou Ndoye en tant que élève CM2 dama bëgg pour que fédération bi nan nu ko jox nun wakaam nu jàngal leen lan mooy tur tout seeni tur nañ ko oyo nit mënuñu la tudde fédération nga war a fédéré ngay tas nooy jële doomu Sénégal di ko wax boobu histoire am ci réew mi ba tey ñu arrangé ko barka dem boo njaay élection yi biir Touba la problème am biir Touba ñu téyé leen sa ginnaaw sa suba ga ñu bàyyi leen yotal leen ba jekk si suuf waxatuma la nu ni nga xamante nak dañu yor teraanga teral leen tok seetaan tok la arrangé ñu def conférence de presse bi passé wana ak mbokk suñu digënté ak mbour sénégal fédération bi wala ligue bi warona jog dem sétiwa mbour sét senu nu bokk tok waxtane ñun premier pas yi jamm yi taxoon nañ ko histoire aguñu de duñu histoire léegi sunu conférence bi dañu wan Sénégal ne histoire aguñu dañuy wan rek Sénégal ne ba léegi nu ngi nuy tooñ bu fekkoonte ne ñaari ña fii Sénégal mas ngeen gis sénégalais ñaari sénégalais yu xeex te kenn saagul sa morom ku nekk da ngay saaga sa morom noonu def nañu mbuur mbuur def nañu loolu vraiment ah. nan ko waxte dee waaye léegi mbuur am na grand frère ñun amuñu grand frère parce que mbuur ñoom ñooy ligue ñooy fédération ñoom ñoo fa nekk plus waa ndar di leen jàppale parce que wakaam ma fekki ndar sa ndar tey jii bu fekkee wakaam dafa dóor benn direct la dóor te wakaam dóor nañ ko quatre direct te masuñu wax lu tax demuñu fi jurbel dama ne ndax wakaam demul jurbel reporter bi don reporter match bi mo yuxu yeen journaliste yi na ngeen ko jël su ngeen ko jëlulé tamit bu ëllëgee dinañ defar suñu kay texte dekk bi mu leer bi nga démé bi nga démé ndar joueurs yi ñu ngi jaar si si fi fi fi ñi sétane ci gar ci si guichet yi dañ leen gënal ay ticket ñu dox ci bir ñu né Wakam du duggal autom ci Purku estatu Ndar pourquoi parce que Wakam bu dóoree Ndar Ndar wacci Ndar wacci kenn waxul ñaari tali dem Mur mbour songo leen histoire dóor len ba ñu len di neub ba mujj gi mbour am nañu finance sax mbour kenn waxul dara mbour ñu ñëwaat Wakam, man jaraaf Youssou Ndoye koro ba am histoire ak Casa ñu jël ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay jasi def ko ci ndënd yi xalé ñu leen di kaw turbine yi man mima ma dem police jëppal man mima ma dem négocier ji arranger ji ba lolu jam am ci ñun ñep ñu nekk ci jam bu ñu baye mbur rek jam am mais ñoo ñu nga xamanteni ñoy bëgg nek ay président ligue président nangam c'est des zéro c'est des insignifiants dama ne qui ñuy wax net na arrêté Nous, Ginaar ak yaay kenn nañu nañu net bi ou bien nun suñu de dina leen jox suñu nous, avons ku nu gisiti sa tuur dugg si biir net bi nga nuy wax lu dul loon su ko roogee boo tëddee sa kaw sa kawam yaa ko yóbbee sa boppa lu leer laa wax